Abdoulaye Roger Dieng maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay voilà Abdoulaye Roger Dieng nga nekkoon euh, secrétaire général bu syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture euh, déjà ma lay laaj sa xalaat ci drame bi nga xam ne euh, moo am ci diggante pêcheuru Kayaari ak Mboro yi ñu gis ni image yu doy waar ay jàppante yu métti ñu bëri jële ci ay blessures mais aussi ay dégâts matériels yu ñu estime cinquante millions de francs CFA naka nga gisee mbir mi nga xam ni am na si diggante nappkatu Kayaar yi ak Mboro yi. lu ñu bett la te comme ni ko olof di waxee lu la bett mën la mais aussi lu ñu ñorul la parce que xalaatuñ ko woon ne loolu noonu dina am ci euh, ci mool yi parce que mool d'habitude bu ko xam mool dëgg xam ne mool ku yéwén la parce que xam na li risque bi nga xam ne moom moo nekk ci géej gi parce que da euh, sa sa moteur panne bu la mool sauvéwul amaan nga ñàkk fa sa bakken da ngay dem géej sa essence jeex bu la mool sauvéwul amaan ñàkk sa bakken mool moom mooy ñëw déggee géej ak risque yi mu am yëpp ñoom may la jëlamu donc ñu jàpp ne mool vraiment mool bi ñu xawoon démb ak mool tey yi ñu gis nii xalaatuñu woon ne lii war na mën a nekk day nekk di gaañante di dóorante di yàqante alal loolu moom xalaatuñu ko woon ci si mool lu ñu bett la te lu ñu ñaawlu la ñu def lii nii ñaawte fii nii dañu war a identifier jàpp leen yar leen teg leen amaan yi si war ak daan yi si war ba nga xam ne lii nii dootu amati ci si si si si si napp bi parce hmm. que li ñaawlu la vraiment. nee nee nga nappkat euh, nitu jàmm la woon lan moo kon indi subitement pour yow euh, fitna bi am ci ci ci euh, diggante nappkat yi pour yow lan mooy lan mooy source bi en fait. bon xam nga tey jii nii xam nga tey jii nii napp bi dafa doon secteur boo xam ne sax dañ ko libéraliser comme neex tey jii mën nga doon mool ça c'est un problème te amoo ci benn formation xamoo ci dara comme neex aussi mun nga yàq sa gaal. te am euh, parce que koom-koom bi nga ci bi ci bi ci nekk la parce que mool bu nekk ba ñu ngi ko doon xamee ci lébu yi ci ci gànnaar yi ci xam ne ñëpp mool lañ léegi lañ léegi ku neex nga yàtt sa gaal ut ñu la nappal parce bi ci yënt la yooyu noonu ay problème yoo xam ne ni amul bu ñu amul formation bi ay surtout doole rek la ñuy def parce que loo xamul. boo ci bëggee dugg di ci investir amaana mën nga ci am ay ay yàqu-yàqu. Mhm. na nga gisee intervention wu euh, ministre bi euh, de la pêche et de l' économie Pape Sagna Mbaye euh, mi nga xam ni dox na si ay jéego bi drame bi amee. waaw ñu ngi koy rafetlu ñu koy koy rafetlu vraiment parce que noonu la kilifa def bu fekkee ne mool yi si sa njaboot lañ bokk ñu am ci ay jafe-jafe mënoo lu ñu taxawu leen te dégg nañ taxaw li nga xam ne def na ko ci moo di ne dem na hôpital seeti ne ñett ñi xam ne am nañ ay gaañu gaañu mais yemul ci jël xool seeti leen rek ñaareel dina jël en charge bi seen frais médicaux yëpp donc loolu ñuy rafetlu la lu ñuy lu ñuy kontaan la en plus de ça aussi ba ñu xëyee organiser nañ ak gouverneur benn CRD pour mun a euh, waxtaan ci jafe-jafe bi fexe ba lii bi dootul amati je pense que loolu mooy dëgg. lii waru xaaluñ ko si si si askanu mool mhm. askanu mool xaaluñ si ay ñaawtee fi ñuy ay yàqalante loolu moom vraiment lu ñuy ñaawlu la lu ñu déploré te yaakaar nañ ne fi dina fi yem euh, d'accord tey jii pour yow yan défi mooy xaar euh, ministre Pape Sagna Mbaye lan moo nekk si kanamam loo xam ni yéen ñi nekk ci secteur de la pêche bëggoon ngeen vraiment mu taxaw si man de su ma doon ñaar yii nii yi ma yi di tuddee les deux RH la gestion de la ressource halieutique et la gestion de la ressource humaine ñaar ñoo ñoon c'est mondial pour ñu développer secteur de la pêche parce que tey jii ressource humaine bi déjà sooxe na bëriwul mais ñi fay liggéey aussi euh, conditions yi nekkee bu ñu la ko waxoon sax nga nga jàpp sa gémmiñ parce que conditions yu difficile la yu métti la euh, yoo xam ne ni vraiment lañ ko war a améliorer dañ ko war defaraat nga xam ne agent yi dañ mën a defal liggéey liggéey bu mucc ayib si secteur de la pêche bi beneen bi mooy la région RH bi bi euh, ñëpp xam nañ ne tey jii ni jamono fu ñu toll nii jën dafay gën di ñàkk dafa gën di ñàkk parce que dafa am ay phénomènes yi ay phénomène de changement de climat climatique phénomènes yooyu euh, doon yemul ci Sénégal rek àdduna bi yëpp la donc forcément il faut mu am ay ay ay ay problème ay jeexital ci ci napp ni muy amee ay jeexital ci yeneen koor yi noonu lay amee jeexital aussi ci napp bi ba tax na il faudrait que ñu def ay mesures d'adaptation yu mel ni gérer ressources bi de façon convenablement et de façon dirable parce que aussi il faudrait que nit ñuy xam benn affaire ressource bi du ressource euh, pêche bi kese wala acteur de la pêche kese c'est une ressource qui commune à tous les Sénégalais ki nekk Tambacounda amul géej ci la bokk ki nekk euh, Saraya wala Kédougou amul géej si la bokk si ressource la bokk c' est une ressource qui est commune à tous les Sénégalais ñu ñëpp a si yem mais du caagane yow mi koy napp rek yooyaa moom ressource ba lu la neex nga def ko loolu noonu du dëgg du yoon dañoo war a jël ay mesures yoo xam ne nii ñun ñëpp dañoo war a jël suñu ressource. Euh, fi ñu toll nii Roger ñu gis ni euh, produits halieutiques yi dañoo cher trop euh, teg si sax pour gis leen problème la pour yow loolu lan moo ko waral. waaw xam nga produit yi tey jii plus value yi euh, parce que boo xoolee lu ci ëpp ci produit bi dañ koy dañ koy dañ yóbbu ko bitim réew tey jii nii yooyu noonu coof am na Sénégal mhm. yeneen jën yi noob yi wax noonu am na Sénégal mais sénégalais bi du ko lekk parce que dañ koy jël exporté ko parce que Europe ñoom ñoo gën a mën a fay prix parce que man man la bi duma di jënd kilo coof à cent cinq mille francs mhm. pour ma maa koy ndawaloo donc kilo coof bi tey jii na yegg cinq mille suba mën na donc genre yooyu noonu moo tax jën bi cher boole si nag ak ak jën bi ñàkk ak ak commencé ñàkk. Mhm. parce que ak changement climatique ah, yi. population bi di augmenter yi demee noonu jën bi commencé di gën di ñàkk. Mhm. donc yooyu yooyu yëpp mu doon problème yoo xam ne nii tey jii euh, day tax jën bi di gën a cher mais bu dul jën bi sax léegi problème la maintenant li ci am mooy ñu def ay mesures yoo xam ne nii jën bi dina mën a dina mën a gën di nekk ci ci dëkk bi di di nii euh, bu ñu mën ko Mhm. Euh, ci ci ci ci rareté boobu sa am ñoo xam ne dañu jàpp ne peut-être licence de pêche yi nga xam ni souvent état au Sénégal daf koy jox euh, autorisation de pêche yi ay ay ay bateau européen wala chinois ñoom looloo tax euh, géej gi fi ñu toll nii desatul dara ba sax yenn jën yi nga xam ne sénégalais bi da ko doon am facilement léegi bu demee marché pour mu gis ko c'est tout problème est-ce que yow d'accord nga ni bateau européen wala chinois yi ñëw di napp ñoo waral. produits halieutiques yi daal di euh, raar jafe. mais loolu c'est tout à fait normal tey jii nii bu fekkee ne man dama nekk ci benn tool di ko béy keneen ñëw di ci béy ci même tool yooyu noonu mais forcément problème dina am jaxasoo dina boo xoolee tey jii nii jën bi fi mu nekkoon mu ngi foofu ba léegi léegi bateau yi effort de pêche bi yokku li ñuy ooyee effort de pêche gaal yi yokku nañ bateau yi yokku nañ ñëpp ñu bëgg a sëkkatoo géej gi mais forcément problème dina loolu mooy indi euh, ñu wax ñu jën bi di gën di raar en plus population bi demande bi gën a yo yokk parce que ñuy consommé jën yi euh, gën a yokk tey jii boo xoolee per capita si consommation di jën ci at yu at yu mu ngi ci ay ay ay ay ay ay ay quinze ak yu vingt kilos par mu mu ci ay vingt cinq kilogrammes par personne donc léegi yooyu noonu c'est forcé que mu mu mu mu métti licence de pêche yooyu noonu te en plus de licence de pêche mais tey jii di oto yi fi napp ak gaal yi fi napp mais pour ñu mën la ne nangami gaal moo fi napp problème la moom la foofu la ñuy xaaree autorités yi parce que tey jii ñu ngi wax ne vingt et un mille pirogues identifié nañ ko mais li ñu identifié ak li nekk ci géej gi bokkul tey jii mën nañu wax ne la cinq bateau wala dix bateau ñooy napp ci géej gi fekk na am na yeneen mot trente bateau yuy napp ci géej gi te doo ko gis en plus bateau yi ak gaal yi dañoo am ku da nga am fu ñu ñu leen yemloo gaal gi dañ ko wax ne ko fii nga war a yem pour napp mooy la pêche artisanale bato bi ñu ne ko fii nga war a commencé ba fii fii nga war a yem pour napp donc bu fekkee ne ñooñu noonu respecté wuñ seen limite problème day am coow day am yooyu noonu la ñu war a mën njëkk a réglé bu ñu bëggee wax ne napp napp mu def lu ñuy wax napp bu sax te dàq. voilà ñu gis ni tamit euh, pêche artisanale bi sooxee na trop trop lan nga ñu si mën a wax pêche artisanale bi moom moo gën a euh, suux face à la pêche industrielle surtout. waaw xam nga sànq wax naa la ne la euh, pêche artisanale bokk na si lu tax mu sooxee mooy ñi ko xamul wàllu yàlla si parce que luy olof yi naa yoo xam ne bu fekkee da nga gis dara loo xam ne si kër gi te daa waroon gis gan gaa ko fi tey jii ni kum neex nga yett sa gaal dem géej nappi te origine ba euh, ay mool yu ñu du tax ñu wax mool ay ay ñoomin ka la woon ay ay lébu la woon ay gànnaar ya la woon tey jii kum neex nga yett sa gaal ñëw napp donc loolu ça pose problème te tant que ñu ngi def loolu noonu te organiser wuñ ci bi problème day du jeex day day bëri pêche artisanale bokk na si lu ko gën a sonal mooy loolu mooy effort de pêche bi dafa bëri dafa bëri il y a on a immatriculé lu mat vingt et un mille pilotes mais man mun naa la waxal ne peut-être am na lu mat euh, trois cent pilotes yu trois cent mille pilotes wala trente mille pilotes yu nekk ci géej gi dina mun naa la mun naa la mun naa la wax loolu parce que tey jii nii chaque jour boo demee ci yenn zone yi benn gaal jub benn gaal bees jubit la te gaal googu identifié wuñ ko parce que on a fait ce qu'on appelle le gel de l'immatriculation immatriculation nañ ko yaa ngi arrêté immatriculation te weesuwul sept ans donc yeneen année yi gars yi dañuy gën di yokk di gën di kii ni effort de pêche bi di gën di yokk ba tax na léegi ñoom tey jii fu ñu demee nappee ko à des kilomètres léegi ay kilomètres yu sori pour bu gis jëm bi te des fois sax doo ko gis donc loolu noonu mu doon ay problème yoo xam ne nii tant que réglé ko def lu ñuy ooyee ay repos biologique def lu ñuy ooyee ay récifs artificiels fexe ba jën bi mun a ñëwaat parce que jën bi bu amul bu ñu yàqee dëkkuwaayam mais day dem. donc il faut ñu fexe defaraat defaraat dëkkuwaayu jën yi pour jën bu mu fi toogaat donc yooyu noonu et puis euh, diminuer effort de pêche bi ñu def sax un système de quota un système de quota tey ji boo bëggee napp ñu ne la euh, ci at bi ak sa permis bi nga am nangami ton nga war a mun a napp ci at bi boo ko jeexalee jeex na mais tant que defuñ yoonoon ak euh, diminuer effort de pêche bi problème rek lay lay indi beneen affaire bi ci nekk moo nekk ni tey ji ni ñëpp reconnaître nañ ne aquaculture alternative la lu ñuy ooyee yarum jën alternative la war nañ mën a développer aquaculture boobu noonu parce que am na si zone yoo xam ne tey jii bi amuñ jën mais bu ko développer aquaculture dinañ leen tam ne ñu a bénéficier jën mais ñu xam ne jën bi ressource naturelle la boo xam ne nii Sénégal yëpp a ko bokk du mool moo ko moom encore une fois nit ki da nga koy wax dëgg boo ko bëggee dimbale. Mm. mais buñ la buñ ñëwee di raay raay wax bi wax jàpp ne yow yaa moom kii bi ni olof yaa di wax naan yow tey jii permettre nañ la ñu ne la ah nga dem napp ji nga defar sa gaal dem napp ji permettre nañ la loolu mais ni ñu la ko permettre noonu lañ ko permettre beneen sénégalais mais bu tax ne yaa nga jàpp ne yaa moom ressource bi ñu mel tey ji ñu ne si si si or bi mais ñi ñiy liggéey si or bi nekkul ñoom rek ñu moom or bi or bi Sénégal wala ñu liggéey si pétrole bi tey jii wala gaz bi nekkul na gaz yi ñoom ñoo euh, les pétroliers wala les gaziers ñoom ñoom moom gaz bi yëlo pétrole bi gaz bi alalu Sénégal yëpp la ressource Sénégal yëpp la ñun ressource bu ñuy waxee ressource commune la à tous les Sénégalais ñu permettre la nga napp ci bu ñu la permettre la nga napp ci nag dañ la wax ne la nga napp ko de façon boobu durable durable boo ko déggee mooy yow li nga mën ci bénéficier woo tey ak sa njaboot nga permettre xaale yi sa sëdd sëraat di sëdd yi ñëw mun ci bénéficier aussi ak seen njaboot parce que tey jii suñ maam yi yàqoon géej gi ñun duñ fi fekk dara. ñun aussi war waruñu mën a yàq géej gi pour génération future yi ñëw ba nga xam ne duñu si fekk dara loolu mooy la pêche responsable et durable ci genre programme yooyu noonu la gouvernement bi war di taxaw ci genre programme yooyu la gouvernement bi war a nekk te pour mu nekk ko il faudrait que mu dooleel vraiment euh, administration bi mooy li ma li ma wax sànq la les deux RH ressources humaines ak ressources halieutiques condition de travail yu acteur euh, administration bi il faudrait que mu renforcer ko def ci li ci war yëpp pour que administration am une administration digne d'une administration qui se respecte di mun a nekk ci condition yu baax pour mun a def seen liggéey ressource humaine bi loolu rek ressource halieutique bi loolu moo ko mun a gérer tant que loolu amul ci problème yi du du ci jóg. mais am na ñu ne tamit euh, pêche artisanale bu sooxe bi bokk na si li gën a euh, favoriser. kii bi dafa sooxe day nekk wala. ah allo yaa ngi may dégg. dafa mel na nga ma ne yaa ngi may dégg. waaw ma ne euh, am na ñu ne euh, même euh, pêche artisanale bu sooxee bi bokk na si li tax lu favoriser émigration clandestine bi est-ce que loolu yow d'accord nga si mais lu may lu may lu may d'accord na lu may nangu la parce que tey jii mool bi dem na ba amatul jën parce que jën bi commencé na raale amatul jën mun naa lay jox lu gën a garaaw ay mool jël nañ seen gaal ak gaal lu mu seeree ak seen mbaal lu mu seeree lu ci nekk yëpp. ñu dem ba géej sànni ko fa wan ko ginnaaw dugg ci gaal bi dem si si mbëkk bi xanaa loolu loolu loolu moo moo moo moo moo moo gën a kii xam nga. dëgg la nga jël say million mun ko woon ginnaaw dem dugg ci mbëkk bi dem si loo xam ne xamoo xamoo loo fay fekk donc te bu njëkk ba dañ doon jàpp ne euh, immigration clandestine ay sénégalais yu la ñu ñàkk liggéey yu dem mais tey jii actuellement boo xoolee mool yi ñooy dem géej ñooy dem ñooy dem def clandestine ñu si ëpp ay mool lañ te phénomène boobu ñoom kenn mënu ko weddi donc ñàkk ressource boobu noonu ak ñàkk gérer ressource bu baax loolu mooy indi problème yi nii ba nit ñi di dem clan immigration clandestine parce que bu ñu dem immigration clandestine si gaal gaal gaal mool lañ jël gaal mool lañ jël donc loolu mooy loolu moom la ñuy dëggal Mm, d' accord Abdoulaye Roger Dieng Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw ñu lay remercier baax la quoi. voilà may fàttali yow yaa nekkoon secretaire général bu syndicat des travailleurs des pêches et de l' aquaculture.